Ah, dama dem ziar suma waajur sama ñaari waajur ñu ngi tëdd fii Touba ñoom laa dem ziar ziar sama sëriñ Cheikh Massamba ziar sëñ Saliou Mbacké gannaaw ba ma ziare sëñ ma dem ziar nag sama wasila Cheikh Ahmad Bamba foofu laa mujj soog a jëm si fii kon noonu laa ko mos doxalee. noo euh, fi mu toll. ay incident mineur rek moom la ma sama représentant yi wax waaye il faut que su ma génnee ma woo leen li gën sedd sama xol mooy Touba ñu ngi tàmbali vote bi si waxtu wi ñu ko bëggee woon kon na ñëpp voté su ñëpp voté incha allah Sénégalais yi daanu tànn seen président